Essa Ndiob eh Essa Essa am nga naan booy sa émission amul best booy. et eh, lan la ay eh, guuxal waay chéri koko oui waaye Essa eh ça jeudi doo def émission ak vendredi Essa mm, eh dama eh. <laughs> jàpp la rek da nga ñëw grand théâtre ma wala duma sa morom ajo kanamu li ma leen di xamal ñaari wax rek la Sénégal ci boppam laa bëgg ñu attañ barki Serigne Touba maître El Hadj Diouf na xam na ki muy waxal institution de république la Macky Sall du moroomam ba muy toog ci rajo yi bu ne mu taxaw fa di wax kenn mënut a dégg rajo boo jàpp El Hadj Diouf nga fa di nga ŋappari loolu mënut a am ma ne munoo lekk ci bool ba pare di ci xëpp suuf. Macky Sall ko def wax naa ko ko démb ci guddi bi muy nelaw laa ne maram yee ko mu ne ma président léegi la tëdd quatre heures du matin ma ne ko yee ko li ma wax Macky Sall dégg na ko ci boppam barki Serigne Touba du ay caaxaan Alaaji Diouf dañ ko war a yemale munoo topp ci rajo yi di mballi mballi ku ne nga taxaw ko naan Obama du tous Macky Sall li muy def ay diir la loolu dafa war a am éthique ak déontologie barki Serigne Touba ñaar laa leen koy xamal ana dama koy woo téléphone léegi xamal ko ne man moom man moom duñu benn balaa ñuy egg si sax ci woo téléphone li gàttal mooy dinaa leen ko xamal tey lan mooy ndeyu moom mu nekk avocat état bi albatiku di liggéey ak état bi am problème Hissène mu taxaw di yàq Macky Sall lu ne ki mu war waxal kay mooy procureur de la république war a waxal ministre de la justice waaye na bàyyi Macky Sall tout tranquille duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg mooy kan Alaaji Diouf mooy kan boobu yëkkatee ay kàddoom fàtte na président Macky Sall institution de la république la kenn waru ko wax yenn wax yi am na loo xam ne nit du ko wax dama ne buñ la joxee cër da ngay nangu jël cër bi waaye topp ci rajo yi di ngàppi ngàppi lu ne nga yàqu ko président de la république ba pare ëlbatu ko bëgg a liggéey ñun mënta ne avocat yaa ngi ci dëkk bi lambar lambar yi Macky Sall na jël responsabilité am na ko dàq ci biti ut keneen koo xam ne dara taxaw barke Serigne Touba bu ko defulee man dinaa ko wax fulla ak fayda te maa koy xamal moom ki nga xam ne mooy alaaj Diouf bu tegee tànka Mbàkke dinaa ko génne Touba moom moom mu ko waaye bu tegee tànkam Mbàkke dina xam ne ne man kan mooy borom Mbàkke danaa ko fa teg loo xam barke du ay caaxaan nit buy wax dara danga koy ñeme parce que ci télé lay waxe alo madam Diouf man la Cissé Lo passe ma sa borom kër na gaaw na gaaw dama ko yàkkamti dama lay yuuxu kay ma ne dama lay yuuxu madame Diouf passe ma ko yow ñaar laa la bëgg xamal barke bu fekkee ne li ngay woote mu ngi ci yow na nga rajo yi ngay wër di taxawaalu di yàq deru Mak Macky Sall foo ko teg yow bu dul makki Macky Sall doo nekk ci ndaata talax bi nga nekk avocat de la république liñ lay fay da ko ñeme wax barke Serigne Touba na nga makki Macky Sall lu leer le leen wax duma fi nekk nag américain yi dem nañu pistolet yaa ngi kii li may def ak moom xam naa ko du ma fi nekk di wax sax wax ju bëri ñu naan dafay tàppet wala dafa am lu muy ragal su ma ko jàppee du ma ko peew bàyyi naa peew bi léegi ndax ñu ngi ci weeru koor du ma toroxal doomu aadama waaye am naa lu gën a gàtt peew su ma ko jàppee ba kottu ko nitam jikko mënu ko bàyyi foo ma génn pistolet na ko ci piiw anamu lekk suñu xaalis ba pare toog ci rajo yi di wax yow yaay suñu avocat gouvernement pour pourquoi nga taxaw ci rajo di wax soo amee lu la métti dama nga wax ko procureur de la république da nga ñeme tey ci guddi sax ñu jël si la da ngay jaay dëgër bopp rek danga fekk Karim boo ko fekkewul Assir Abré yéen ñaaree àndandoo ana nga na mujj tey nga koy waxati ña nga bokkal ñëpp avocat ñëpp da nga dégg ma dikke ñaa wax ana ma dikke ma nga Tuubaa toog jàpp ñaamuram waaye nga toq sa làmmiñ bi rek di ko wax na mujj tey barki Serigne Touba boo ko bàyyiwul dinaa la rey ci piri comme que tufle taxaw ci wet gi